الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأصنع خديمه ومن والاه kon ñu yeggale rek fi ñu yemoon démb ci masalikul jinaan ubbi woon nañ téere bi waxoon itam téere bi ak sëriñ bi sëriñ bi anam gi nga xam ne ci la ko taalifee ak ni ko tëre ak it jamono ji mu ko taalifee fi mu ko defee ak euh, fi jamono tolloon wax itam ci jubluwaay yi nga xam ne moom la wax ne moom la am ba tax mu taalif ko wax itam ci delluwaay yi te mooy bi mu koy taalif ci yan téere la doon dellu ngir taalif téere bi wax itam cosaanu téere bi ban téere la ak téere booba itam ban dayo la am sëriñ bi nag daal di ci indi nag gannaaw ubbite gi geneen ubbite bu gën a yaatu koo xam ne def cee wax lu yaatoo yaatoo yaatu ci wàllu xam-xam ak solo si maam waaye ak jëfe xam-xam solo si ba nit ki war a boole ñaar yëpp wartee fu mu doon daal ci nit ki mu war a góorgóorlu ba wut xam-xam te boole koog bu ko wutee itam ba am ko wala lam ca am mu boole koog it taxaw te mu jëfe ko te xam ne xam-xam it jëfe gi mooy njariñam mu wax ne boroom xam-xam yi dañoo wax ne xam-xamu diine ñaari xaaj la séddalikoo xam-xamu diine ñaari xaaj la ko benn bi xam-xam la boo xam ne bu feeñ la benn bi xam-xam bu nëbb la bi zaahir la bi baatin la ne bi nekk bu zaahir nekk xam-xam bu fés bu feeñ mooy bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy jëfi jaam bi jaamub yàlla bi jëfam yi muy jëf ci diine loolu lay yéwénal loolu lay defar di ko war nan lay jullee nan lay laabe nan lay woore nan lay demee màkka nan lay génne asaka bu dee yaxantu wala muy jëflante ci wàllu alal nu koy defee bu yoree ak njaboot nan lay jëflanteeg ñoom ak yaaju ci yooyu yëpp nga xam ne mbiri jëf la loolu lay jàngale beneen xaaj bi nag te mooy xam-xam bi nga xam ne bu biire la batin la jëfi kaw yi tax ko jóg du dugg ci di wax naan jëf ji nii lañ koy defee ak duñ ko defee nii ak li yaatu waaye la ko tax a jóg mooy melokaanu nit ki moo ko tax a jóg melokaanu nit ki te mooy bu nit ki jëfee ba noppi lan la war a def ngir jëf jooje man koo jariñ ci biiram maanaam biir nit ki moo ko tax a jóg defar biir nit ki muy melokaanam biir nit ki nag waxoon nañ démb ne ci ni ko bi waxee woon nit ki bu defaroo faw kawam biiram defaroo faw kawam defaroo wax ne bu jëkk boobu nga xam ne nag mooy xam-xamu zahir bi moom la borom xam-xam tudde fiqh xam-xamu fiq bu ñaareel bi moom la ñuy tuddee tasawuf mooy yii imam Cheikh doon junj léegi fiq moo lay jàngal yooyu ma tuddoon léegi ci gannaaw attee laaba gu ci aju jullee gi ci aju boolem jëf ju doomu aadama ji jëf ci àdduna rek fiq mooy atte jëf ju nekk lan mooy atteem ak la ci aju nu doon xam-xamum ñaareel bi nag muy tasawuf nga xam mom la waxon ne la yewenal bir ni kéeku taxaju momit amna atem way atay lal dara lu jëm ci kaw atay lépp ci xolum nit ki la jëm nit ki nan lay fexe ba wala bok la jëpp nan lay fexe ba selal xolam fexe ba mbolem rag-rag xol yi sonal do ma dama mu fexe ba muccu ci fexe itam ba xex ak non yooyu nga xamne serigne bi waxon na ci bindu demu bi ne am na bunt boo xam ne ñoom la ko jagleel ak nees di def ba mucc ci seen lor kon tasawuf loolu ko tax a jóg mu teg ci na nag waaye nag ñaari xam-xam yooyu biñ doonee ñaari xam-xam yi nga xam ne ñoo séddaloo di xam-xam yi diine ba noppi it xamal ne am na ci boor a jiitu moroom ja topp ja am na ci boor a jiitu ci booy jàng am na bu ci war a jiitu ci booy jëf booy jàng fiq nga war a jiital cim njàng bul jóg rek seen sufiyanke ak seen melokaan bu baax bu sell wañ yor nga xemem leen wala dégg la ñuy wax nga xemem ko tax nga jóg rek ne da ngay sóobu ji ci seen yoon wa walla sax dégg nga arab walla jàng yeneen nga nekkat da ngay jóg yëri seeni téere te sa njàngum fiq matul ba noppi ndax boo ko defee mën na laa jural la neen te dana am lu mu ci juju léegi daat ne boo ci jógee nag nga doog a dem jàngi tasawuf ak la caaju waaye boo dee jëfee itam fiq moo war a jiitu ndax fiq mooy représenté li feeñ ci charia moo koy représenté moo koy jëmmal ta nag daa am charia am xaqiqa danañ ci ñëw ci kanam kanam lan mooy différence bu charia xaqiqa ci anam gu gën a yaatu charia nag toujours moo wara a jiitu xaqiiqa doog topp ndax xaqiiqa bu amul charia loola ak kéefar lay gën a jege ci diine moo tax faw charia moo war jiitu kon moo tax mu ne ci jëf gi itam charia mooy jiitu xaqiiqa doog cee tege wala nga ne fiq mooy jiitu tasawuf doog cee tege te bu ma ko doon misaal doone man jëf yi ñu digle ci kaw sama yoon nekk ci man daal sama mbirum xol rek laa topp toog naa fexe ba sellal sama xol naa fexe ba dara du ma yéene kenn ab safaan naa fexe ba du ma rëy naa fexe ba du ma yëg sama bopp naa fexe ba du ma njësal wursu tëdde noonu li war a am mooy ak lu mën a xew jëf yi ñu la jëfloo muy ay digal moom lu mën a xew da nga koy def ak nu mën a deme nag ak nu mën a dem mën a deme da nga koy def sëriñ bi ci ndénkaan yi ñu doon bindal di ñu ko dénk am na ci ndénkaan loolu boo ca demee ndénkaan lu yaatu la ca njëlbeen ga loolu la ca wax dana yéen ñaaju ci man ñëpp maa ngi leen di dénk ngeen jëfandikoo digal naa leen naa leen maa ngi leen di digal ngeen di jëfandikoo sharia ak lu jàppandi ci yéen ci xaqiqa ngeen dolli ko ca kon lu mënta ñàkk la lii nag lu am solo la ndax jamono dem na ba yegg ci du jamono sax naka jekk yàgg naa am ay nit ñooñ mën nañoo jóg rekk def seen yitte ci gëstu tasawuf ak la ca ngir noonu yooyu moo waxoon léegi neexit wi ci nekk ak cafka gi ci yëg loolu yóbbe leen seen njàngum diine du mat bañ xam sharia ak la ca ci ay atteeki tënk-tënk bu ko defee lam leen di yóbbe mooy ñàkk dégg diine leen di yóbbe bu ñu yeexee it dana leen yóbbee woyofal lu ñu war a woyofal wala diisal loo xam ne sax yëgut fañ ko diisal diisal gañ ko yeggal gañ ko diisal yëgut foofu kon moo tax noonu mu ko waxee rek noonu la war a demee jiital bi war a jiitu teg ci bi ci war topp mu wax ne nag ñoom ñaar ñi itam benn mënu ca ñàkk moom li ci am solo kay mooy jiital bi war a jiitu topp ci bi ci war topp waaye benn mënu ca ñàkk ndax bu ci ñàkk rek am na lor ju mag ju jur képp koo xam ne bu jëkk bi te mooy fiq walla nga ne li feeñ ci sharia nee nga sama yoo nekku ci gannaawal nga ko sa yoon nekku ci doo ko jàng doo ko gëstu yitteelu la doo ko jëfe sa yoon nekku ci fii ci àdduna danga am jafe-jafe ak borom xam-xam yi fi nekk di xam-xam yor xam-xamu sharia ndax ñoom la yàlla gàll li aju ci mbiri kaw yi fés lu ci nit ki war a def te def ko ñu jëflante ko moom ca nañ ko war a xam nga ne sëriñ bi bindaloon na la ca téere bi ñu njëkk jàng ci téere xam-xam yi muy tasawut saxaar na la julli farata la ci jullit mënu ko ñàkk def ne la bu fekkente na nag nee nga nanguwoo julli waaye nangu nga ne julli lu war la waaye danga ko nangu te def fawwu àtte bi ñu teg mooy danañ la tuubloo delloo la gannaaw boo delloo gannaaw ñu bala boo ko teelee def boo ko lànkee def faaw dañ lay atte buñ atte na ko sëriñ bi leeral la boppam ci toujours sixaar dana atte bi ñu lay teg mooy dañ lay rey ci kanam mbooloo ñëpp teewe ñu jël jaay si rey ngir buñ ca jógee kenn dootu ko xalaatati loolu ña koy def ñan la borom xam-xam yor xam-xamu diine di ko saytu ñooy taxawee loolu mu ne nag kon képp koo xam ne li aju ci wàllu jëfi kaw yi diine digle fas nga ko yéenee neenal fasoo ko yéenee faale fasoo ko yéenee toppatoo da nga dajeeg borom xam-xam yi yor àtte boobu te di ko doxal la ñu war a teg ci sa ko ci kaw te lu metti lay doon léeg mu doon rey léeg mu doon euh, ay caw léeg-léeg mu doon dagg ab cër léeg-léeg mu doon sax ñu teg nit ki ay daan ci laaj ko alal wala sax mu yegg ci ñu génne nit réew moom dëkk sànne ko yóbbu ko ci mën réew moom dëkk lépp ci ay xeeti teg-teg lay doon mu daal wax ne waaye bu ñaareel bi itam nag muy tasawuf bi nga xam ne moo jëm ci xolub nit ki ak biiram moom it doonut lu lu lees mën a neenal ndax képp ku ko sàggane moom it te loolu bari loolu lu muy dal nit jàpp na xam-xam daal mooy jàng téere yi rek fu masala fekk xóote daal da fexe ba xam ko masala bu naxwu grammaire bu mën a doon lu mu xóot xóot da ba xam ko xeet yooyu yëpp daal nga yittewoo ko waaye li jëm nag ci sa biir te mooy li taxoon a jóg xam-xam sa yoo nekku ci moom daal fu toogee ci masala yi moom ñëpp yaa leen koy dàq yaa gën a xam yaa leen koy gën a jekk yaa leen koy gën waaye ànd ak loolu nag wet gi des nag te mooy wetu ruux gi sa yoo nekku ci loolu am na ci aw nit ñum dal ñoo xam ne dañoo waru ci xam-xam ndax liñ jàpp na mooy xam-xam du xam-xam xam-xam loolu tegandaay la rek ci xam-xam waaye xam-xam dëgg-dëgg mooy loolu boo ko amee ba noppi nga mu jariñ waaye bu ñu amee ci loola mooy da nga wut ngànnaay jëfandikoo woo ko du jariñ mu wax nag ne képp koo xam ne nag loolu dal na ko te mooy woon bu njëkk ba rek jàng sharia ak la ca aju ba xaj na xam na ko xamin wu jéggi dayoo waaye wet gi ci des yoonam nekku ci faale wu ko jàpp na ne amul solo jëru ko jàpp na daal diine jëpp mooy sëgg siggi koor maanaam diine daal lépp jëfi kaw la fàtte na ne diine li ci ëpp solo jëfi xol la ndax jëfi kaw yëpp it daa am lu ko tax a jóg mooy day defar xol defar xol ko tax a jóg ba nit ki xolam taqoo ak boroomam xolam sell xolam laab xolam génn ci rag-rag yi nga xam ne mooy ayibal doomu aadama mu ne saa yoo sàggane loolu nag topp lee rek ba fàttee lii sàggane ko dëgg la naam borom xam-xam yi moom duñ seq a yow dara ndax loolu mbirum batin la te borom xam-xam yi li leen yàlla àttaloo mbirum kaw leen di àttaloo la borom xam-xam boo xoon ne nahnu qawmun nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair ñun aw nit lañ ñooñ diine ji ñu yor li ñuy digal mooy bu ñuy jël àtte ci kaw lañuy sukkandiku li feeñ ci kaw lañuy sukkandiku di ci àtte lam ñu jox waaye ya ca biir suñu yoon ci yàlla lañ koy bàyyee bu ëllëgee mu di jënd ba moo waral ñaaru nit mën nañoo séq dara ñëw kenn ki tooñ moroom ji ba noppi ñëw joxe lay joxe lay ba yaay ko liñ mën a xam ci lañuy sukkandiku pour teg àtte waaye bu muccee fii ci àdduna it bu ëllëgee du mucc ndax yàlla moom xamoon na lépp loolu la sëñ bëgg a wax ne fii itam boo yittewoo wet gee ba fàtte wet gii itam borom xam-xam yi ci àdduna moom seen yoon nekkul ci yow ndax lii mbirum biir la seen yoon nekku ci atte mbirum biir duñ ko atte waaye na la wóor ne du tax nga rëcc ndax ëllëg yàlla ngi lay xaar te dana ko séq yow ndax daa am loo war loo leen te woon ak moom ci jox ko sa xol ci toroxlu ci kanamam ci bañ a yëg sa bopp ci dara ci sab xol laab ba génn ci mboolem tilim tilim yi koy ko yàq te defoo ci dara wala defoo ci la war a def bu ëllëgee faw suñu dana ko lijjanteeg yow te dana dana doy war lool mu ne kon loolu liñ ciy déggee mooy boole ñaar yëpp kon warteef la wu mënta te mooy na nit ki jàngi fiq ba xam ko xam àtte yëpp la ca aju jàngi tasawuf ba xam ko xam na mi defari biiram ak na mu koy laabale ci jëfe gay noonu na jàng fiq ba xam ko di ko jëfee di ko pratiquer ni ko l'islam diglee ni ñu koy jàngalee ci téere yi mu di ko jëfe noonu tasawuf itam lam ca jàng mu di ko jëfe kem kàttanam bu amee itam li tuub yàlla ku ko mën a womat ci loxoom ba yeggale ko ca yegguwaay bu mu bëgg a yegg mu dem euh, aju ci moom mu jaaral fu mu jaaral ba yeggale fu mu ko war yeggale mu teg ci wax joo xam ne al imaam malik radiallahu anhu moo ko imaam malik dafa wax ne képp koo xam ne jëfandikoo na fiq te mooy jëfandikoo na li feeñ ci kaw ci xam-xamu diine bi rek yam ca la féete wàllu biir ga muy mbirum xol ya yoonam nekku ci moom daal jàng na lépp la aju ci àttee fiq ba liñ ci mën a xam-xam na ko bu taxawoon fii ñu julli bu jullee ba noppi moom da naan moo daq julli ci yàlla bind julli gi day rafet lool correct ci kaw bu wooroon ci kaw loolu lay jox bu doon aj màkka noonu waaye la aju ci biir moom yoonam nekku ci te mooy julli gi mën naa rafet lool ci kaw waaye julli gépp gis sala ko laal ngir diw ak diw mi koy xool seere ak mën a rafetu julleem wala julli gépp lim mu rafet rafet ci kaw forme bi ci kaw la jox yitte waaye fond bi moom yoonam nekku ci loolu danay am nit ki mën na fee taxaw taxawaay yu rafet rukkoon rukkoon yu rafet sujjóot sujjóot yu rafet jàngal alxuraan jàng mu neex te li muy def lépp dar xol bi nekku fi boba moy yitte won ak kawgi way yitte won birki imam malik ne ku yitte wo kawgi nak fatte yitte wo birki atta bi nga yor moy ak kacior lañu jappé ak kacior mo nek ci yow kacior gi lu djublu manam moy ci kaw yaangi top yalla waye ci bir yaangi moy yalla wax yalla soxla wu ci yow dadna nak ndax li ngay def mën naa bari waaye du la jural benn njariñ du la jural benn julli misaal julli mi ñu gën a jege julli li ñuy wax mooy nit ki lim ci am mooy lim ci teewloo julli gi lépp bu diiree cinq minutes digganteem ca teewlu loolu la ci am bu dee ñaari seconde ñaari seconde yooyu la ci am ñeenti minutes ak nangam seconde yi des yëpp zéro lay doon du ci am dara kon loolu mooy wane na kon giir gi lu mat a yittewoo lu mat a bàyyi xel waaye mu wax ne it nag solo suus mu am itam bu taxee nag ba tax nga safaane ko it yittewoo biir gi dong ba noppi kaw gi nga ne doo ko yittewoo te misaal bu julli jotee nga ne man du ko def damay toog fee beru xalaat sama borom wala nangam ak nangam loolu dana ma ko weccil boobaa ci caaxaan nekk nee na bu boobaa atte biñ lay jox mooy gën a garaaw atte kàccoor boobaa liñ lay jox mooy atteeb naa feq lañ jox maanaam yaa ngi mel ne ku nëbbu kéefër ba noppi di feeñal ak njullit yaa ngi mel ne ku nëbbu kéefër ba noppi di feeñal ak njullit loolu mënta nekk teg ci ne kon ki nga xam ne nag góor-góorlu nag ci gannaaw ndimbalul yàlla ba dajale ñaar yépp li muy jëf ñu digle ko ci jëfi kaw mu di ko def te di ko defee nam ko war a defe góor-góorlu ca kem kàttanam boole ko itam la ca aju ca biir ga mu bàyyi ko xel na mu ko war a bàyyi xel du ca fàtte dara du ca sàggane dara kooka mooy ki nga xam ne nag mooy ki tege ci yoon wi mooy ki nga xam ne kuy wutu royukaay kooka nga war ndax mooy ki nga xam ne moo mat loolu imam malik radiyallahu anhu moo ko wax sëriñ bi woy ko ci téere bi euh, mu teg ci ne kon loolu lépp li ñu ciy jëlee rek mooy nga xam ne xam-xam ak jëfe jëfe la xam ñoom ñaar ñooy moyens yi nga xam ne ci la nit di jaar ba am texeg àdduna ak beneen yoon bu nit mën a jaar ba am texeg àdduna ak lu mel ne daa jaar ci ñaar ñu nekk ay moyens te mooy na jàng ba xam li war a xam kem kàttanam ak mu ko mën a jànge góorgóorlu ci jëfe lam war a jëfe jëfe ca lam xam kem kàttanam lam ci war a jëfe mu ne kon na nga farlu ci ñaar yooyu sa kem kàttan te farlu ci say jëf nga jëm koo sellal ci mbooleem yàq jëf bu ca gis sal ko gis ak ko gisut ku yëgu ku yëgu bu ci sa yoon ne góorgóorlu itam ci boo ko jëfee ba noppi itam sellal ko ci moytu caañ moytu koo naw bañ a yëg ne def nga dara ak mboolem xoyti yooyu nga xam ne moo yàq jëf na nga jéem a góorgóorlu itam ba jéem a laabal sa xol itam ci mboolem yi nga xam ne ñoo yàq xol ci xeetu yëg sa bopp naw sa bopp ak jàpp ne yaa féete kaw kenn ak xeet yi yooyu nga xam ne yëpp moo yàq xol teg ci ne te loolu lépp nga boole ko itam nag ak doon ku dëggu ca la ngay def doon ku amuk sellal te yàlla rek tax itam ndax ñaar yooyu boo ko ci boolee li nga bëgg àdduna ak laaxira la nga dolli ci it nag lépp nga sos nga sof ko ci sunna si bi sallallahu alayhi li ngay def lépp na dëppog sunna fexeel ba bul def dara loo xam ne day wuuteeg sunna si yonente bi sallallahu alayhi ndax nag ci lislaam moom amul jëf ju fi nit di def yàlla nangul ko ko lu dul daa dëppog sunna si bi alayhi waxtu wu nekk itam na ngay jéem a not sa ci jéem koo tàggat ba boo tollee ci jàng ak xam-xam lu mu laaj ci coono na nga ko jéem a def na nga nangoo toggoo ngir am ko waaye bu jëfe jotee nga jëfee itam bul yéem a teg sa sa bakkan dara lu diis ci jëfe ak lu metti metti na ko sëf lam war a së lam a yanu lépp ngir nga mën a am ngërëmul sa borom mën a am ak mbaax jamono ju nekk itam na fexe bay góorgóorlu ba di jéem a tënk sa bopp di jéem sàmm sa bopp ba nga xam ne daal la ngay ne dana doon loo xam ne bis bu faatu ne woon asalaamaaleykum da nga ñeme ne ko waaleykum salaam loolu itam na ci góor góorlu fa toll te xam ne nag àdduna si ngay dund biir bu gàtt la coono yi nga fi jànkoonteel ngir xam-xam ngir jaamu yàlla ngir jub ak jëfe lu baax lum yàgg-yàgg lum réy réy réy boo ko nattee ci lam lay jariñ ëllëg lu tuute tuuti lay doon lu tuutee tuuti lu lay doon kon nanga nga fexe ba bu la tàyyeel wala bakkan wala dara dugal ci ñàkk nangoo toggoo ay coono ngir mën a am njariñ lu réy loolu nga xam ne moom nga ci mën a góobe bu ëllëgee teg ci itam nag ne waaye nanga xam na it nag jàng ak jëfe it wala nga ne jàng ak jaamu yàlla itam li ñuy baax baax nga xër ca def ca yitte ju kawe waaye ànd ak loolu taxut sa biir defaru yaa ngeeg sikki yi ba tey yaa ngi moom sax boog nga ne man kat euh, dama xam ne xaj na bu ma jàngee du ma mën a jëfee kon naa ko ba mu ne yooyu yëpp li muy yóbbe nit mooy ak wor rek la yóbbe nit la te mooy jàng nga ba ne ar yaa dàq jaamu yàlla ñëpp xaj na ci kaw waaye loolu lépp téewul tam yaa ngeeg sikki xol yi ba mu ne gàdd ci xol ba tey dara desu dara dara deñul waru la lay andil ndax da jàpp ne yaa ngi def lu baax amul doo am njariñ ndax bu amoon njariñ doo dese li nga dese ci ayib ba tey ak sikki waaye ba tey itam ànd ak loolu du tax nga ne dama koy baax ndax du ma ma mënumaa baax wala mënumaa mel ni nga bëgg a mel ndax loolu itam yoon la woo ba tey seetaan da koy xàllal ngir bëgg laa yàqal ngir lu bon bon nga jéemoon a góorgóorlu ca lee man caa jaare ba yegg fa nga jëm moo gën a yomb nga bañ faa jaar sa far boo fa jaarul moom nga yegg fa jëm daanaka xawta kon nga ne nag man sax kat xam naa ne mel ni ma war a mel sama xol laab génn ci nangam ak nangam mënuma kon nag du ma sonnante jërul may sonn ci njàng jërul may sonn ci jaamu yàlla jërul may sonn ci nangam loolu moom mooy yoon wi gën a gaaw pour seytaane moom dugal la fu la bëgg a dugal ndax moom yow defoo dara far kaw defoo dara tey it ayib yooyu nga nekke woon ba jàpp na mënoo caataago moom da ngay gën a wéy wéy moom bu ko defee mooy yaa ngi woon ak ab safaan yu baax ya nga waroon a a fàggoo ko si néew nga far bàyyi ko muy ay safaan yu yu dolli ko sa kaw rek alias foofu itam sëriñ bi fi waxaale ne euh, ndax bàyyil xel ne nit ak nu mën a mel ci àdduna ak fu mën a yegg ci ñàkk jaar yoon it ba léegi suñu borom mu ngi koy ubbil bunt ngir mu yegg si ci moom te mooy buntu tuub bi mu koy ubbil yàlla ak loo ko mën a def ak lu mu mën a doon ak lu mu rëy rëy ndax mboolem ni doomaa damay def bokkaale yàlla ci gën a màgg amul lan lu toll moom te bokkaale yàlla moom yi lu ci nit dund lu mu yàgg-yàgg it bis bu tuubee tuub gi di dëgg fa saasa la yàlla far mboolem la jàlloon lépp dootu ci faale dara kon la neen waxi nopp lu yàlla du jéggal nit amul ci gàttal benn bàkkaar mooy lu yàlla du jéggal nit te daa am fu mu ku dul jéggale muy moo ñu waxoon léegi fan la ku dul jéggale mooy bu demee dema dema dem ba nga xam ne dara desitu mu bëgg a dellu gannaaw moom nga ne ñàkk pexe tax moom yàlla doon ko jéggal ndax wéy na ba noppi ku dema dema dema dem ba toll ci xar-xarle toll ci sukuraat bëgg a dellu gannaaw kooku moom loolu mën mënatu ko toog lijjanteeti ndax jeex na nag dafa dafa daf koo sàggane ba ëpp waaye lu dul loolu nit ki bu ko tubee suñu borom daf koy jégal ak lu mën ram kon mu ne bunt boobu yàlla ubbi nag ngir yow xamal ne seytaane moom du jóg ci jéem a defi pexe mukk waxtu nekk ngir jéem la koo tëjal bokk na ci ni muy def pour jéem la koo tëjal mooy saa yu ne dalay wan ne la kat bàkkaar bi jëru tuub ndax boo ko tuubee mën na koo bax faaw da nga ko defal bu ko defee nga ne kon jëluma di ko tuubagul naa bàyyi ba man koo ba rek doo ko tuub yow xamoo dara ci sa bopp sa dund xamoo fu mu yem kon boo nee naa bàyyi ba man ko ba wala ba jamono sàngam mooy ne seytaane la pexe lim nar ci yow weesuwul nga wëy ca wëy ca ba xeexee rek dee yegg si sa kaw waliyasu billahi taala kon li mu bëgg a wax mooy bu dara taxa bañ a dellu gannaaw ci seen dund ci li jàll te melu ni a waxtu nekk lépp loo xool ci seen dund te gis ne melu ni mu war a mel la góorgóorlu tuubal ko sa borom te am pas-pasu tàmbalee ca nag jaar ci yoon nga war a jaar suñu borom mën na laa gatanu ak irma dem mu delluwaat ba tey di wax ne nag xam-xam moom ma doon waxit xamal ne jëf baax na lool jaamu yàlla baax na lool am na solo lool waaye li muy am am solo buñ ko doon nattalee xam-xam nag xam-xama ko ëpp solo xam-xama ko gën yëmut ci gën ko waaye mooy mooy laytaayam boole ci jaamu yàlla fondement am laytaayam mooy xam-xam ndax jaamu yàlla ay jëf la jëf yooyu yëpp faw daa am ay atte yu ko tënk yoo xam ne moo lay wax nu ñu def ba mu baax ak nu ñu def ba tax alias billahi taala mu baax kon li nga xamante ne bii ne mooy tax mu baax loolu moo ko féete kaw te loolu mooy xam-xam mu ne waaye nag li mu koy gën gënit téewul moom xam-xamit nag njariñam moom wala boo ko doon nattaleeg di ko misaale ko garab meññetam ci jëfe gi la nekk moom bul ja buñ ne la moo gën rek tax nga nga yittewoo ko fàttalale ni mu ko waxee léegi ndax boobaa mi ngi mel ne nga yor jumtukaay boo xam ne jëfandikoo woo ko ci dañu ko jëfandikoo doo ma si ak mbaaxam lu mu rëy rëy doo ko ma si gis ndax jëriñoo woo ko kon loolu itam na moytu daan na kon lii mbir mi daal mooy booleel ñaar yëpp ñaar yëpp jéem a la xam te jéem góor góorlu ci jëfe ndax loolu daal mooy yoon wi dëgg-dëgg xamal ne it jëf ju baax ju néew te tege ci xam-xam moo ëpp yool fuuf jëf ju bari te tegul ci xam-xam te tegul ci xam-xam loolu lu bari misaal la loo xamante ne bii nag misaal yu bari mënees na ko ca misaale yu bare bare bare bare misaal yu bari dees na koy misaale lu mel ne ci jàkka yi léeg-léeg nga gis ko nit ku ñëw dugg ci jàkka ji fekk nodd nañ fajar ba noppi noddug salaatu mu ñëw gannaaw déggoon na ne kat wax nañu yonent bi aleyhi salaatu salaam na boo duggee ci jàkka bul toog mukk te julliwoo ñaar rakka muy nuyu jàkka ji dégg na itam ne buñ salaatoo dañuy julli ñaar rakk muy ñaar rakkee fajar tax bu ñëwee ci waxtu woowu nu muy def da daal julli ñaar rakka jublu ci yéene nuyu jàkka ji bu noppee jógaat taxawaat julliwaat ñaar rakk ngir julli ci jublu ci ñaar rakkee fajar foofu jëf ji bari na lool ndax julli na ñeent rakk mu bari lool kee ñëw dégg xam na ñaar yépp moom xam na ko ak seeni at mu ñëw dugg ci jàkka ci waxtu woowu julli ñaar rakk dong kee moo ëpple ku njëkk ëpple waaye kee ëpple tuyaaba ndax li sax mooy kii li mu def néew na waaye da ko teg ci xam-xam kee la mu def bari na waaye da ko tegu ci xam-xam li tax mooy li kii ku mu jikki def mooy li ñu war a def jàkka boo ci duggee gannaaw bu ñu noddee fajar def ñaar rakk yooyu beral di ko nuyoo gannaaw bu ñu xasee noddu fajar yonent bi alayhi salaam mi waxoon yooyu yëpp daa waxaat ne bu ñu xasee noddu fajar amatul lu ñuy julleetu lu may ñaar rakk fajar cig naa fi la kese boo ñëwee kon ci waxtu woowu ci jàkka ji te jullee goo fajar sa kër ñaar rakkee fajar dong ngay julli ci jàkk ñaar rakkee fajar yooyu nga julli jàkk ji yóbbaale na ñaar rakkee nuy jàkk yóbbaale na loolu misaal la ci lii sëriñ bi wax nga xam ni mu demee ci jëf man gu mën a bari te njariñam néew ba noppi itam mën a néew ba noppi njariñam bari ngir daa tegu ci xam-xam tegu ci xam-xam mu wax ne xam-xam nag bu am njariñ mooy ban mu ne nag mooy bi nga xam ne nit ki def koo xamlu da koo xamlu ngir jëm yàlla rek ndax xam-xam it daa am boo am njariñ am boo mun njariñ moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu toujours buy wax ci xam-xam ñaare daana xam nga mën a wax fépp wala li ëpp ëpp bokk ci li nga xam li ma xam da gis buy wax ci xam-xam rek al ilmu naafi lay wax xam-xam bu am njariñ lay wax xam-xam bu am njariñ al ilmu naafi xam-xam bu am njëriñ ndax jëmmi xam-xam rek taxul ñuy ñuy ñuy sonn ak sonn waaye xam-xam bu am njëriñ moo tax ñu war a sonn xam-xam bu am njëriñ nag doonut jub buñ ko waxee jubluwuñu ci jëmmi xam-xam bi comme ab matière loolu moom jubluwuñ ko ci loolu faaw ñu bàyyi xel bu ñuy wax xam-xam bu am njëriñ jubluwuñ ci naan la grammaire naan la fiq fee naan la science physique wala astronomie wala déedéet yooyu yëpp yu am njëriñ lañ waaye fii liñ wax mooy xam-xam bi nga xam ne nit ki bi mu ko xamee moom bi mu ko jàngee wala ba mu koy jàng dana ko amal njëriñ ci diggam ak boromam maanaam loolu ay nattukaay la yoo xam ne ay melokaan la ak ki pas-pas ak ki yéene ki doxin moo koy def ci mbir mi waaye jubluwu tax jëmmi am matière bu naan bii am na njëriñ ak bii amul ndax daanaka xam xaj na boo xamul yow fa nga koy jëriñoo rek waaye yëpp am jëriñ kon bi am jariñ mooy bi nga xam ni ki daf koo xamlu da koo jàng gëstu ko xamlu ko ngir jëm yàlla rek ba noppi góorgóorlu ci di ko jéem a xamle waxte yàlla rek tax waaye doonut mukk xam-xam boo xam ne nit ki da koo xamlu ngir werantee ko ak gis sale ko rek wane wane xam-xam boo xam ne da nga koy wut te dara taxut lu weesu gis sale di ko wane woo di ko puukare woo ci kaw nit ñi wala werantee ko fu ñaar toog nga ñetteel lu waaye wax da ko wedde wala di ko puukare woo ci kaw nit ñi wala di ko rëbbe àdduna di ko wute ay njariñ di ko wute ay daraja di ko wute ay tolluwaay ki wàccuwaay ci kanam nit ñi di ko wute ay pexe di ko wute nooy man a def ba këf xeli nit ñi dëgg ma wuta wëlbati leen jëme leen ci sa ci sa bopp yooyu moom du xam-xam bi am njariñ ndax yépp bu ci nit ki wut xam-xam ngir moom sedd naa gis lor ja balaa moo jóge fii ci àdduna noonu la ko waxee bépp xam-xam bu nit wut ci diine rawatina ngir lenn ci jubluwaay yi mu wax lor ja moom dana ko gis balaa génn àdduna ndax xam-xamu diine rek daa réere ay bopp wëreesu koo wut ngir yenn yi toll na tolluwaay bopp ci dayoom am na yooyu suufe na lool ñu di ko wut ngir moom war maanaam yii yëpp nit ki mën na ko cee am waaye bu mu doon yitteem yitteem na doon lu gën a kawe lii boobaa mën naa am loola amaale ci lii te fekk sa doon yitteem mu ne kon képp koo xam ne jàng na xam-xam wut na xam-xam ngir benn ci yi ma la tudd te tuubu ko ba faatuwaale ko walla mu dunde ko ba màggat te jéematu dabaatal li ko rawoon ci rëcc-rëcc ëllëg yamal xiyaam amut dara lu mu ak yàlla lu weesu ay jafe-jafe ak mbugal ak yeddaange yu metti yu ko teg suñu borom teg ci kawam bi billahi taala ndax xamoon na li mu waroon a def xamoon na fi mu waroon teg tànkam ba noppi teg ko fa topp bakkanam ak bànnee xam ak àdduna rek ndax xam-xam ba ëllëg aw lay lay doon woo xam ne day da koy yay maanaam xam-xam dañuy layoog moom ëllëg képp ku am xam-xam nag ëllëg benn sa xam-xam yay la baa nga yay ko baa mooy benn mu doon saw lay wala nja wala jariñ wa illaa mu doon lay wu tege ci sa kaw lor la yow ndax li nga xamoon jëfewoo kon mooy aw lay la wuy tege ci sa kaw yey la yas billahi taala do am lo wax yow ya ndax li nga ñaka def sa ñaka xam tuxul ko ñaka tuxul ko ba waye top sa bakkan top say banex mu rek yobbe mu dal na kon xam xam bi am jariñ kon moy ban gannaaw wax na lu bi amu jariñ ba nopi yi nga xamne bu amé xam xam moy amu jariñ kon yi nga xamne moy tax mo am ci xam xam ba tax xam xam bi am jariñ moy yam mu ne moy xam-xam bo xam ne bi ko nit ki amé da koy jural wek yalla xam-xam bi nga xam ne bu ko nit ko amee da koy jural weg yàlla ragal yàlla jox ko cëram jural ko itam suufeel boppam doyadal boppam jural ko dëddu àddina wan ko gannaaw wan gannaaw poñetum àddina jural ko bari teggin diggam ak boroomam bari teggin diggam ak moroomi jaamam jural ko xol bu laab bu sel bu rafet bu yéene ñëpp jàmm bu yéene ñëpp aw yiw bu bañ a kenn ab safaan jural ko itam not bakkanam ci moytu lépp luy mooy yàlla loolu mooy xam-xam bi nga xam ne xam-xam bu am boobu bi mooy bi amal nit ki njariñ fii ci àdduna amal ko njariñ itam ëllëg àllaaxira yii yëpp ngir waxtu xat wi waaye lu ci ne am na yu bare bare bare yu ko gën a lu ko leeral mu ne kon képp koo xam ne nag am na xam-xam boo xam ne xam-xam ba melut yóbbewu ko yii ma la wax yii mu mujj wax na xam ne kon xam-xamam boobee ëllëg mënu koo fegal sawara te xam-xam daa bokkoon ci njariñam mu fegal la sawara ëllëg képp koo xam ne sa xam-xam melut nii juralu la yii ma wax yu mujj yii juralu xam ne sa sa xam boobu ëllëg mënu tee dugg sawara mënu fegal sawara boo yeexee sax mooy gën a gaawal sa dugg sawara moo koy gën a gaawal mu teg ci nag daal di ñëwaat ci geneen wet goo xam ne moom day wax nag ci léegi jëmmi xam-xam yi ci seen jëmm nag xam-xam yi diine yi rawatina ci ak yi ñuy jàng ngir muy ay jumtukaay yu ñu gën a xame diine niñ gënantee ci seen biir fii nag moom waxut ci ay critères yu ñu naan xam-xam bii bi nga ko jàngee lii la jariñ wala lii la yóbbu ci yow ci ay moo tax mu baax wala moo tax mu bon waaye fii moom day wax ci jëmmi xam-xam yi comme ay matière loolu lay fii mu ne ci xam-xam yi diine yëpp nag matières yi ci ne nga xam ne matière yu bari la yu bokk ay fànni xam-xam bi ci féete kaw gën ci mooy xam-xam bi lay xamal ni ñi gëmee yàlla ak ni ñu koy wéetale mooy xam-xamu tawxiid mboolem xam-xam yi jàng ci lislaam li muy bari bari bari bari xam-xamu tawxiid moo ci féete kaw lu tax moo ci féete kaw ndax mooy xam-xam bi nga xam ne li aju mooy li gën lépp li muy jàngale mooy sunu borom tabaaraka wa taala ak i melokaanam ak i jëfam ak rapport bi dox diggante jaam bi ak moom tabaaraka wa taala ak ni nit ki war a gëme yàlla ak fi mu war a teg boromam loolu xam nañ ne mooy cosaanul diine laneen lu ñu amaat ci diine rek ci gannaaw loolu la tegu kon xam-xam boobu mbooleem xam-xami diine yëpp moo ci féete kaw moo ci gën mooy xam-xamu tawxiid mu wax ne nag bi ci tege mooy xam-xamu tafsiru quran alquran doon leetar bu ñu suñu boroom ya yónnee di wax ak ñun kon boroom xam-xam yu ko dégg ngir seenu dégg diine ak seenu xam jël ko firiwaat ko ngir di ñu ko leeralal ñun yëgu foofa loola mooy la ca tegawaat cib dayo ndax moom it la ma aju amul la ne lu ko féete kaw ci ñëwaat yëpp ndax ci waxi suñu borom la aju te waxi suñ borom melokaanu suñu borom la kon génnul suñu borom ba tey la ca tegawaat mooy xam-xamu xadis xam-xamu xadis xadis buñ ko waxee li ci jublu mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu fi nekkee lim daan wax. saxaaba yi daan ko jëlee ci moom mokkal ko di ko nettali wala boog mu daan ko jëf ñu di ko nettali wala ay nit jëf ko ci kanamam mu bakko ca ñu di ko nettali wala lu aju ci xeeti melokaanam ak yu mel noonu yooyu lañ tudde xadis rawat na sax surtout ñett yu njëkk yee kon xam-xam boobu nga xam mooy jàngale wax yonente bi yooyu ak jëfam yooyu mu daan def te xam nañ ay waxam ki jëfam mooy li jiitu ci lii firi alxuraan ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy ki gën a dégg alxuraan ku dul moom kon xam-xamu xadis mooy ñaareelu xam-xam bi tege ci wala mooy ñetteelu xam-xam bi tege ci xam yooyu gannaaw tawxid ak tafsir mu ne nag yi ci gënaat gannaaw yi ma wax nag mooy xam-xamu fiq te mooy xam-xam bi lay jàngal itam ni ñu ko doon waxee rek ci gannaaw jëfi kaw yi niñ koy jëfee boo bëggee laab ni ngay laabe boo bëggee julli ni ngay jullee boo bëggee woor ni ngay wooree boo bëggee aj màkk ni nga aji màkk boo bëggee natt asaka ni nga koy defee ak ba ci boo bëggee nekk ci marché ba di yaxantu wala di liggéey ca bureau ba wala ca place ba te na nga koy defee dëppoo ni ko lislaam bëggee ni koy defee xam boobu mooy xam-xamu mooy bi ci tegwaat ndax moo lay jàngal ni ngay jëfee si diine moom it ci gàttal du lenn lu may am seggit mu jëlee ca alxuraan ak xadis rek fiq lépp loolu dong la seggit la muy seggee ci alxuraan ak xadis dong du leneen du ay xalaat du ay gis-gis waaye lépp ci alxuraan ak xadis ko seggee génne ko alxuraan ak xadis nag daa riche richaay koo xam ne yegg ca génneel ca sa bopp yombut loolu ay ñu néew ñoo ko man ñu néew ñoo ña ko man nag ñoo ñu ko defal dimbalee ñu ko ngir ñu mën a am luñ jëfandikoo buñ bëggee jëfee loolu rek la mooy fiq mu ne gannaaw boobu yooyu ma tudd nag am na ay jumtukaay yoo xam ne dëgg la ci cosaan du ñu ay xam-xam yi lislaam dëgg-dëgg waaye ay xam-xam yi làkku arab lañ waaye nag gannaaw lislaam daa wàcc ci làkku arab alquran wàcc ci arab yonente bi aleyhi salaam doon wax arab ña ay jëfam ak waxam itam doon ay arab di ko nettali ci arab kon faw ku la gën a dégg arab rek moo la gën a am jàpp ndalu bu mën laa gën a dégg diine dégg diine te dégg arab xawta mën a nekk xawuta mën a nekk xam naa dañ koy tegg na la waaye xaw ngaa a xam ne mënta nekk sax rek mu ne sa dégg diina moom dégg wér te dégg arab mënta nekk ndax diina daa bari ay yëf li ci aju loolu nag mu nekkoon am na ay jumtukaay yoo xam ne la ñuy xamlu ngir mën a xam arab googu xam gu wér ngir mën a xam diina xam gu jumtukaay yooya lu mel ci la bokk naxwu xam-xam bi ñu tuddee arub xam-xamu balaaxa ak ya ci aju yëpp ak mboolem xeet xam-xam yi nga xam ne ñoo jëm ci làkku arab nga xam ne mooy dimbali nit ki ci mu mën koo dégg ba bu ñëwee ci ab yaxu texte alquran wala xadis mën a xam liñ bëgg a wax mën a xam liñ bëgg wax lan la ndax am na ci xam-xam yooyu ku ko xamut mën naa jël ab texte xadis wala texte alquran firi ko te li muy wax ak lañ jubloo wax safaan bi lay doon safaan bi lay doon duñ bokk dara ndax ñàkk di garab moo ko yóbbee moo ko yóbbee mu teg ca nag ne waaye maa ngi lay xamal ne itam jëfit nii moo amee ci xam-xam noonu la amee ci jëfit jëf te mooy yàlla ak def lu baax ja ca gën kaw mooy jëf joo xam ne daa bari ay njariñ yu ca mën a juddoo jëf rek moo la ëpp njariñ yu mën a juddoo jëf jooja moo la gën misaal jëf ji nga xam ne yow da nga koy jëf mu yow ci sa mu yam ci sa bopp kott jëf ji ngay jëf mu laal keneen laal keneen moo ko doole ñami laal jariñ leen lu mu gën a yaatu jëf ji di gën a yaatu di gën a baax di gën a di gën a gën mu ne misaal mi mooy lu mel ne xam-xam bu ko nit ki amee mu man koo dàqal ak réer moom ci jëmmam jariñ ko dàqal ak réer dindil ak réer ñeneen xamal leen seen diine jariñ ñeneen mën a laabal xolam mën a laabal xolum ñeneen defar leen mooy gën xaj na ay rakk yu nit kiy julli moom rek ci ay naafilaam yoo xam ne yëf boppam la ndax loolu moom ci boppam dong la yem nga toog jàngal ay nit ab bind ci lislaam ñu xamee ci seen diine moo ëpp boo ko seetlee te yàlla tax moo ëpp njariñ nga julli ñaar rakk wala ko yoo xam ne naafila rek la ndax naafila yi moom ci sa bopp la jëriñut keneen yow dong la jëriñ lii nag jariñ na la yow jariñ na keneen jariñ na keneen jariñ na keneen loolu jub mu teg ci itam ne bokk na itam ci liy wane jëf solo su mu am ak ngëneel lu am diis gu diis ci bakkanu nit ndax ñaare nit ki ñaara saa yu xolam wala xelam nekkee ci jëf jenn jëf ju baax rek li gën a bari man nga koy seetloo bu sa xel nekkee ci yéene jenn jëf ju baax rek ñaare fi saa si maanaam xel dan na yollu ci wet gi jox la baneen baneen xalaat waaye nit yàlla yi toujours dañ di digal na la la njëkk ñëw defal loola la njëkk ñëw bu ko bàyyi mukk la njëkk ñëw rek wéyal li lii mujj a ñëw bu ko def mukk ndax loolu lépp pexe la yu seetaane di lal rek di ko teg ngir jëm laa yàqal bu ko defee moo tax itam mun a bokk na ci lii màndargaal jëf ak gënam mooy jëf ji gën a diis ci sa bakkan mooy gën ndax mooy gën a tàggat sa bakkan moo koy gën moom jëf ju gën a baax rek bakkan da koy gën bañ jëf ju gën a baax rek moom la bakkan di gën a bañ bakkan moom nanguwul lu koy diisal nanguwul lu koy sonal mu ne te loolu buñ koy misaal bokk na ci lu mel ne joxe sa alal ci yoon yàlla bu la yàlla mayee nga am loo a joxe te yàlla tax joxe ko te yàlla diis ci bakkan ndax alal daa sax ci xol rawatina bu la yàlla nattoo nga doon koo xam ne joxe yombu la bu boobaa jéem a tàggat sa ci joxe moo ëpp solo ci yow ngay jéem a jëf yeneen jëf yi des ndax lii moo gën diis sa bakkan maanaam sa jafe-jafe fi la nekk boo ko bëggee faj fii nga koy jaar ko faj ne itam lu mel ne koo xamante ni bii yàlla da koo nattoo mu mu mu mu topp nday jorom lool fonk xewlu lool kooku yi jëf jigéen ci moom mooy li gën a diis ci bakkanam te mooy lu mel ne lii ñu nekk woor xiifal boppam ndax am na kook jafe-jafe moom nekkul ci taxaw fii julli téeméer rakk mën na ko léegi waaye jafe-jafe mooy xiif ñetti waxtu te gis lu mën a lekk loolu moom mooy jafe-jafe mënu ko kooku buñ ko bëggee defar buñ ko jaar ci di ko julliloo ndax boo ko julloo mën na fee tàmbalee fii ba fajar ak jàmm du jeexal waaye niñ koy lijjantee mooy dañ koy xiifloo foofu la jàngoroom nekk fa lañ koy faje am na koo xam ne itam mën na lee waaye joxe mooy problème mënu ko buñ ko dee faj ci joxe lañ koy jaar ko faj dañ koy liggéeyloo muy liggéey ñuy jël lañu liggéey lépp joxewaat ko mu ñàkk mu mel na ko ko ñàkk kon loolu itam ay màndarga la yuy wane jëf jëf yi bu teewee ci sa kanam ca ëpp solo ja war a daw jëm te mooy jële ca gën a mën a defar yow loolu nag nit ñu tolloo wuñ ci ndax nit ñi bokkuñ ay melokaan kenn ko nekk ak lii ma waral nit yàlla yi daan tërbiyee nit ñi daan wuutale nit ñi leen di defee ci yenn yi am na yooyu moom ñëpp koy bokk mais am na yooyu dañ koy wuutale da ñëw moom si Tuubaa mi radiyallahu anhu day na ci misaal ca ña doon tërbiye wu ñëpp bokkuñu woon lu ñu def am na yooyu ñëpp bokk waaye am na ñëpp bokkuñ ko am na kook jafe-jafe mooy xaj na daa bokkoon ci askanu ceddo bokk ci këru néegu mbuur wala nangam war a faru kooku day am lu lu mooy day am jafe-jafe fekk fi koo xam ne ca démb nangam la woon ci moom wala yooyu du ko nawloo la lay gën a diis ci moom nga nga wan nga gëmloo ko ne ko yaa ngi ñee yam doom wala sa ñoo la gën foofu la ñuy jaar pour defal ko di ko yalwaanloo ji di ko taxanloo man koo yebal sax ci dëkk ba dëkk yam daan faloo wala ay bokkam daan faloo mu dem fa taxaw fa yalwaan fa wala mu def fa lu koy doy ndax yooye bu xasee def rek ba sippeeku rek jeex na amul jafe-jafe yeneen jikko yu baax yi amoon waaye lii dong moo doon problème bu xasee deñ rek baax na set na wecc am na koo xam ne doomi soxna la woon moom ba mu juddoo ba léegi ma ngi ci alxuraan jàng jàng ma jaamu yàlla loo ko ci def la mën na ko def waaye jafe-jafe mooy moom it daa amoon ay gis-gis yu mu am amoon ci société bi ñu mu xeeb am ñu jàpp ne daal du wàllam moom bu ñu ko bëggee defar yooyee mu jàppoon ne du wàllam yooyu lañ koy def loo xamal ko nag ñu ñëpp yam maanaam li ñëpp war a mën a def nga war a mën a def rek nga wut mën a def lu yàlla it lépp lu yàlla nangu waroon ko mën a def nit bu jaree ñu ñu ñu ëwloo ko ñu ëwloo ko bu jaree ñu yettuloo koy bant ñu yettuloo ko bu jaree ñu suudeloo ko ñu suudeloo ko ndax loola bu ca jógee rek day daal defaram saas amatul benn jafe-jafe kon xam naa mën nañoo taxaw boobu ci euh, bindu tay bi incha allah taala boo ëllëgee ñu yeggale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu